ci xarnu bu mujj bi def nañu jéego yu rëy ci xeex ak feebar yi waaye ci at yi wees feebar bu bees moo ñu indil aw tiis wu rëy ñu ngi koy tuddee sida amaguñu ñakk ci sida walla pexe yu ñu ko faje wante am na doxalin yu yomb te wóor ngir mucc ci ni ngeen ko nar a gisee ci lii ma leen nar a nettali mu ngi xewe ci dëkk bu tuutee tuuti ba bëtub neen mënu koo gis dëkk bu kenn mënula gis lu dul ak microscope dëkkub feebar yi ci àdduna jooju niki suñu àdduna si dafa am ay dëkk yu feebar yi walla jiwu yi leen di joxe dëkk nettali bi nag xarit yi mu ngi xewe ci dëkk bu tudd jàngoro koto boroom dëkk ba xeetoo ci feebar bu am doole bu tudd sëqët su bon si xeetu jàngoro yu bare fa dëkkoon lompañ ŋas sibiru payis ak feebaru sëy yi di sifilis ak sopiis akit nag njabootug biir buy daw at yu mujj yi moom atum musiba la fii ci jàngoro kotoom xeetu ràññeeku ci ñun di jàmbal raaf na ba jeex tàkk ñàkku léegi yi xoqatal na dund ñi deme ni lompañ eh, eh, eh, gàttal njàqare ne woon ca dëkk ba ba keroog benn gan yegsee bëgg a gis boroom dëkk ba gan ngaak borom dëkk ba sëqët su bon si fanaanee waxtaan eh, eh, eh, yéen waa jàngoro koto dal leen ak jàmm えー、お、え、えー、ま、マギの。waaw mm-hmm. dal leen ak jàmm ci ëttub sëqët su bon si nga xam ni coxoram day defi musiba yéen waa jàngoro koto jàngoro maaleykum maaleykum jàngoro ndaje mi waxtaan xeex bi ñu ni jëmale ci ngir ñun ngir raafal ñoo ko waral maa leen sib ndax ca dëgg-dëgg xare bu rëy la ñu ñu jógal jëme ko ci ñun ngir raafal ñu yàqu nañu nit ñaa ngi def campagne wér gu yaram ngir jëlee ñu fi na xel dal suñu tiis léegi mu jeex yéen waa jàngoro koto am naa mbégte mu rëy ci xamal leen ku demee ni ndàkkal gi tell ma rajax gi ponkal mi ci xamal leen ngande mi sida jàngoro maaleykum <laughs> dama ñëw indi leen sama kàttan ah. nit ci boppam foog ñu fay li mu ñuy toroxal yow ngan na mi sida sa wax rafet na waaye ñun jëfañu soxal mbir mi dafa tiis te man samay xeet la fa ñalatuñu ñu bari ah? doomu jàngoro lompañ xam naa sa tiitaange ak sa njàqare jot naa si saafara si balaa ma leen a wax samay pexe maa ngi ñaan feebari sëy yëpp ñu jàppale ma ci liggéey bi <laughs> jàppale maax hmm, yéen dinañu def mbir yu doy waar samay xarit Değil mani kaay leen ma wax leen lu xereñ ci pexe yu may songe nit ma tàmbali ci yoon yi may jaar bu dugg ci seeni yaram di yu bari lool am na yoonu deret wi yoonu sëy yoonu mujj di diggante ndey ak doomam yoonu deret wi di njaxasoom deretu nit ku dara jotul ak nit ku feebar bi dal ba noppi jaare ki ci jumtukaay yu bari yuy dagge yi nit di jëfoo nañ seet puso paak <laughs> waaw doomu jàngoro sibiru yow ngan mi sidaan ndax sama xarit yoo mën na laa dimbali nga dugg ci yaramu nit sibiru maa ngi naw sa farlu wante ci lu ñu mënula dégg nit mënula jële doomu jàngoro sida ci yoo am na it yoonu sëy su benn nit sëyee te fàgguwul ak keneen ku ma dugg ba noppi ubbil na ma yeneen yoon yu ko samay doom mën a dugge te wóor na ma ni yéen feebari sëy yi di ngeen ma yombalal sama tasaaroo yow nga mi sida wax ji neex na waxi kese rek dara ump ñu woon ci li nga wax waaw boo duggee nag ci mu nit ki ba noppi lan ngay def dama gis ne kii di doomu aadama lenn rekk ko téye ba muy dund di kaaraange ki yaramam seetlu leen lii di globule yu weex yi wër ci biir dereeti nit yi di rey ji wuy feebar yi yàq kaaraangeeg nit googooy li ma mëne su ma ko yàqee ba noppi nit ki dara yiiratu ko dëggil kaaraange googoo ñu teene lew ngeen topp ci man ñëw dugg nit ki nu mu leen neexee jëme ko ci dee tey mbaa ëllëg su booba ñu naan sidaat reyeen na keneen nit fekk ca dëggantaan yéen a ko daaneel. <laughs> yow nga demi ndax nit mi jàpp ni moo gën a muus ci kaw suuf amul menn pexe moom la mën a téye. xanaa nenn rekk nenn dong ci moytuma mooy faggu. faggu jàmm ngir moytuma nit warula jëfandikoo luy dagge lu ñu jëfoo ba noppi te sellul. ku ciy sëy na yam ci ku mu nekkal rek wala mu jëfandikoo kawas. nga lu dul moye ngoog. ma laaj leen ndax nit ñi dinañu mën a topp tegteel yu yomb yii. déedéet <laughs> mukk mukk loolu moom duñu ko mën déen <laughs> waa jàngoro koto waxtaanu tey jii ci wàllu fagu nañ ko gas suul bu mu génn dëkk bi <laughs> kon mbokk yi na ku nekk daas paakaam taxaw temm di xaar biir buy daw dina leen woo ñu àndandoo daan maa ngi dem liggéey mu ngi may ginnaaw noo yëddoondoo waxtaan wu réew wi feebar yi def maa ngi am yaakaar ni jàpp ngeen ni ñuy moytoo sida tasaare leen xam-xam bi ci fi ngeen dëkk ci seeni xarit seeni mbokk ngir ñu mën a moytu sida te ngeen jàppale képp ku wopp bi dal ba noppi suñu mànkoo mën nañu ànd daan mbasum sida kan moo gën a muus sida wala ñun nanu gën a muus sida